dañu bëgg jeunesse bi ndaw ñi am bëgg-bëgg boobu ne ñoom euh, suñu gisee ci télé yi dam bitim réew gis tubaab bi dundu ci benn niveau de vie bi benn confort bi mais ñooñu ëpp ñu leen dignité ay nit lañ ñooñu ay nit lañ donc ñoom aussi am nañ droit ci loolu suñ su amee droit rek dañ ko war a xeex te suñ su war a xeex dañu gëm ne mën na nekk lu gën a metti si xeex bi mooy gëm ne mënul nekk parce que ñu bëri dañ leen gëmloo à travers des mécanismes psychologiques et euh, de blocage mental que Afrique du dem Afrique fii la mën a yem loolu noonu la ñu bëgg mu génn si xelu ndaw yi ñu war leen yoon boo xamante ne suñ ko toppee lu jëm si wàll développement personnel lu jëm si wàllu entrepreneuriat lu jëm si wàllu politique yooyu yëpp su ko toppee si livre bi détaillé nañ fan lañ mën a jaar ba fexe Afrique ñëw au sommet du monde maintenant loolu mën na nekk euh, luy am si diir bu gàtt wala diir bu yàgg may nekk loolu moo ëpp solo lu ëpp solo mooy mu nekk sunu mission ñu liggéey si ba ñun suñu demee ba war a génn àddina ñu suñu doom yi ñun kat lii moo nekkoon suñu mission Afrique nekk si kaw fii lañ ci toll réussir ko mais topp leen yoon bi ba egg si wax leen yéen tamit seen doom yi wala seen sët yi nañu fexe ba Afrique des foofu bañ a wàccati donc loolu mooy livre bi mu nekk livre ambition. waaw loolu mu nekkoon ay xalaat yu ñu amal nan la ñu mënee refonder l' action politique ci dëkk bi maanaam politique ni ñu koy defee ci dëkk bi lépp dafa tourner autour de l' présidentielle donc fal njiitum réew mi loolu la ñuy defee politique ci dëkk bi képp ku jóg dangay jóg am say diplôme am profil bu baax dugg si média yi di wax rek nga ne léegi da bëgg a nekk président de la république te loolu jàpp nañ ne nekkul lu baax parce que nag doo ñëwee si làmb yi doo ñëw rek ne da ngay bëre roi des arènes il faut nga mbapat il faut nga bëre yenn kii ba mën a ba ñëw mën a bëre roi des arènes maintenant nag nit ñi lu ñu leen wax mooy politique xam nga fa localité yi si communes yi képp koo xamante ne am compétence am nga mën-mën bul xañ sa dëkk compétence yooyu parce que da bëgg nekk président de la république demal foofu wane sa compétence xeex fa parce que problème yaa ngi foofu politique mooy càmbar cité bi lu ñu bokk mais cité bi nekkul dëkk bi mooy fu nga dëkk fu nga dëkk foofu soo fa demee di nga fa mën a xeex amal fa lu am solo donc ñu constaté euh, loolu loolu noonu moo am Sénégal moo am France parce que régime bi régime bi lépp ci président la tourné Emmanuel Macron bu muy falu France bu muy doo a falu amuloon député amuloon dara mais dafa falu parce que France nu ñu ko organisé euh, avril mai élection présidentielle am juin élection législative am ku gagné élection yooyu moo koy gagné. et loolu xëy ñu rek def ko dañ defoon présidentielle nekk 7 ans député nekk 5 ans ils ont constaté que président bi soo ko falee mu dawal 2 ans ñu def élection day perte élection législative yi mu am cohabitation. donc pour éviter cohabitation bi ñu indiwaat cinquante cinquante jegele élection yi comme ça soo falee président balaa muy def dara gars yi si effort bi si kontaan bi bi bu ñu koy wane télé di wax ay baaxam di wax lu mu def nu muy organiser gouvernement élection yi jot mu gagné ko waat et puis mu contrôler euh, mu contrôler complètement nu kii bi di doxe donc loolu soo constaté ñu gëm ne Macky Sall tamit 2012 loolu la woon bu muy falu amul woon député amuloon woon mais bu mu faloo la mumbaay bi yëpp topp ko mu contrôler euh, politique dëkk bi yëpp. bu ko defee ñu des ñëpp nekk ay figurant donc ñu ne loolu noonu gëm nañ ni suñ si yàggee dëkk bi du dem donc ñu ne il faut une démocratie des territoires en lieu et place d'une démocratie à régime hyper présidentiel donc loolu pour def ko le pourquoi on l'a expliqué le comment aussi ay propositions concrètes la bokk na si proposition yi euh, très rapidement bu su njëkk mooy dëkk bi élection législative yi dañ ko war a supprimer suñ ko supprimer élection locale yi kese di am euh, maire yi nekk ay député maire donc loolu xam naa dina régler problème parce que xam naa politiciens yi am nañ problème mu nu ñuy def élection législative yi ñu ngi xool nu ñu koy poussé parce que pousse nañ locales yi suñ ko poussé pousse présidentielle yi mais élection législative yi suñ ko supprimer élection locale yi nekk élection centrale si vie politique gu dëkk bi suñu falee maire yi ils sont les représentant du peuple parce que député mooy euh, taxawal waa askan bi et puis gouvernement bi te ñoom suñu leen falee noonu dinañ am kattanu taxawal seen askan dinañ am kattanu aussi contrôler gouvernement bi beneen bi mooy dëkk bi aussi comme ni ñu ko waxee pour nekk fi président de la république dañaa bëgg ñu gën a xarañ ci dëkk bi amal njëriñ suñu gox-goxaat yi parce que ñu gën a xarañ fekkee président da leen xëcc élection présidentielle ba duñ dem seen dëkk dëkk bi day am lu muy ñàkk donc ñoom dañuy toog si touche bi di xaar nekk président alors que mënoon nañ dem seen dëkk daf dara donc ñu ne fii euh, proposition bi mooy képp ku fi bëgg a nekk candidat élection présidentielle da ngaa war a nekk maire d'abord au moins benn mandat ba mandat bi jeex après nga dugal sa dossier pour mën a nekk candidat à l'élection présidentielle. beneen bu si topp mooy comme que euh, ñu bañ loolu ñoom dañaa ñëw rek. yox seen profil nekk ci médias yi di wax ñu leen woy ay intellectuel wala am nañ bon profil ñoo dañu bëgg nekk président te ñemewuñu dem xeex seen dëkk parce que dañuy wax ne dëkk yi amul xaalis amuñu moyen su leen falee maire tamit duñu mën liggéey ñu leen ah ñu leen wutal ay pexe yu ngeen amee xaalis pexe bu si njëkk mooy TVA dëkk bi 50 pour cent nañ ko jox fonds de dotation yi actuellement c'est à peu près à 3 pour cent de TVA li jox fonds dotation yi nañ ko yóbbu ba 50 pour cent euh, kii nii suñu jëlee pétrole boo xamante ne ñëpp a bokk revenu yi nañ jël vingt cinq pour cent jox ko collectivité territoriales yi donc collectivité territoriale nañu am ay budget milliards te dañu mën doxal loo xamante ne mooy problème askan bi beneen bi topp mooy loolu noonu yëpp soo ko taxawalee donc n'importe qui waratul jóg rek ne mooy nekk maire parce rôle bu ñu leen jox day am solo su dëkk bi rôle bu importance la donc il faut ñu xool profil yi ndax mën nañ ko comme ni ma koy waxee ku mel ni fee maire wu Pape nekkul ko war a mën a nekk maire système bi ñuy proposé parce que amul capacité yi mais nag pour bañ a éliminer yëpp duñ ñëw rek nee ko amul master wala ko amul licence doo nekk maire parce que am na ñu nekk si dëkk bi am xam-xam am pexe mën liggéey te jaaruñu si circuit école française donc dañuy ne kat dañuy def benn certificat boo xamante ne dañuy mettre benn en place benn organisme buy saytu doxalinu commune yi ak conseil municipal conseil municipaux yi bu ko defee ku bëgg nekk conseil municipaux da ngay dem foofu def benn certificat de validation de compétence fekk amoon na compétence avant da nga ñëw examen bi validé fekkee amoo ko ñoom ñu mettre à disposition benn formation formation bi nga nekk ci nekk ci nekk ci su la neexee def ko mille fois soo validé rek kenn du la tere nekk nekk candidat donc loolu c'est pour s'assurer de et de la euh, valeur des des élus municipaux vu le rôle important bu ñu leen bëgg a jox. beneen bu si topp moo di euh, dañu bëgg ñu am gouvernement boo xamante ne liggéeyam day tourner si doxalinu localité yi doxalinu gox-goxaat yi moo tax ñu ne dañu wax am gouvernement boo xamante ne maximum cinq la wax a am wala dix ministres au maximum ministre de souveraineté wala ministre régalien yi yeneen fonction yoo xamante tam tàmmoon nañ di leen jox ministre. ñu def ko ay direction ak ay agence bu ko defee falin bi politique di si dugg euh, euh, affaire par parlo di si dugg ñooñu dañu fay fal ñu am compétence ñoom te ne ils ba pas même pas obligés di def politique bu ko defee ñoom ñu doxal léegi nag ñu yokk si gouvernement bi ñoo xamante ne mooy des secrétaires d'État chargés du développement de chaque département bu ko defee ñoom action gouvernement bi dootul tul nekk fonction bu ngay toog rek ministre du commerce rek mu nekk fonction nga toog la mooy objectif wu commerce la mission wu donc il nous faut des ministère de mission pas des ministères de fonction donc su ko defee chargé du développement 2 donc c' une mission claire et définie donc département bu nekk ñu teg fa ko xamante ne mission moy développer département bi bu ko defee ñu mën a saytu seen liggéey mën ko mesurer mën leen responsabilité bu ko defee ñoom dans chaque département dañuy regrouper maire yi préfet yi sous préfet yi direction yi ñoom ñëpp mobiliser moyens yooyu yëpp pour ñu développer département bi à l' échelle locale Euh, beaucoup plus palpable et façon mesurable maintenant at bi su jeexee conseil départementaux yooyu noonu euh, euh, comment dire secrétaire d'état yooyu chargé de développer les départements département département ñooñu ku si jël ndaare ñu dàq la ku jëloon premier ñu jël la yóbbu la fu gën a metti nga nga gérer système boobu soo ko mettre en place chaque année nañ mesurer département bi fii la tolloon fii la dem mais nu ñu demee nii benn département mun na mel la même chose pendant cinquante ans te kenn du ko mesurer parce que joxuñu kenn mission boobu ñëpp ay fonction la leen jox ñu toog seen ministère di gérer lu ñuy su jeexee ñu ne ah maa nekkoon ministère du commerce maa nekkoon ministère jeune te duñ la mesurer mission. donc loolu noonu mooy proposition yi soo ko tënkee ñu bëgg aussi képp koo xamante ne d'accord nga si ñu ànd si wax ko. ba mu nekk l' essentiel de l' activité politique de ce pays parce que nous croyons loolu mooy avenir au Sénégal ñoo xamante ne nag d' accorduñ ci kiiwuñu ko on est disposé à débattre dans la contradiction pour leur prouver que suñu idée euh, jàpp nañ ne moo ëpp doole yeneen idée yu ñu mën a indi